te yaakaar naa yaakaaruma nit ci kaw suuf dina ànd ci ñi ñuy toroxal doomu adama ndax toroxal doomu aadama mooy dóor li ñuy def nii dóor mooy toroxal doomu aadama dañuy toroxal doomu aadama bi te loolu kenn d'accordu ci te man yaakaar naa même seeni supérieur sax sant leen li ñu nekkee ñëpp gis nañ à travers les vidéos li xew gis nañ image yi ñuy wane gis nañ digg ginnaaw yi jàmbur nañu mel gis nañ sax ba ci ay force de l'ordre yor ay yar yor ay liif yor lu ne di ko wane di ci bàkku di ci ndamu di am contentement ak mbégte ci toroxal doomu aadama et je crois que ni bu ñu dellusiwaatee ci droit bi ñuy wax parce que aussi euh, l'obligation de faire faire ça n'existe pas amul fenn loolu moom amul fenn. respecté wul dañ laa war a dóor. kon yow dóor d'accord ku respecté wul loi bi en tant que président la nation président de tous les sénégalais taxaw na wax xalifa généraux bi nga xam ne mooy sëriñ sëriñ sëriñ bi nga xam ne mooy xalifa général ku li murit ne jàkka yi sax na kenn ku ne julee sa kër kon kooku. moo njëkk a tegu ci yoon kon kooku lañ war a topp ci ginnaawam kenn ku ci nekk heure bi nga bi président wax nga toog ko sa kër mais ku violé loi loi violé ci sa kaw réew mi il faut ñu waxante dëgg population yi nañ toog seen i kër parce que feebar bi virus la virus bi kenn xamul fu muy jóge kenn xamul ci ku mu jëm kenn xamul ku ko yor. policiers yi dooree ak ñi tam indi débat nous sommes dans un état de droit li ñu ma li may fàttali mooy. même su fekkee ni dañu nekk état d'urgence la légalité n'est pas en congé c'est-à-dire que égali légalité bi teewul ni dañoo nekk état d'urgence dañ koy teg de côté donc li war citoyen bi moo war policier yi donc foofu aussi loi boobu tënk na koo xamee ni da ngaa jalgati couvre-feu bi c'est parce que aussi manque de citoyenneté ak patriotisme moo manqué ci maanaam éducation boobu la la sénégalais yi manqué am na ci ñoo xam ne aussi dañoo xamul te également l'État aussi n'a pas pris des mesures sur parce que mënoo jël ay mesures draconiennes sur le transport et demander également aux Sénégalais que ñuy ñuy ñuy dugg à temps parce que Diourbel peut-être mën na bañ am posé mais ñu nekk dakaar quand même dëgg banlieue di liggéey biir Dakar c'est des difficultés. mais dóor kenn sant ko kenn mais aussi il faut que population yi respecter vraiment directive yi ñu leen joxe parce que un président de la République c'est pas une personne ordinaire su joxe ay ordre que ne vraiment. vingt heures na ñëpp tëdd parce que benn ennemi bu ñuy xeex te xamul doo ko gis là vingt heures na ñëpp bu dem tëdd soo amee loo xamante ne ni boo euh, parce que pratiquement ñëpp lu ñuy wax mooy fi may jóge ak fu may ñibbi moo sori mais nga tu quittes à dix huit à dix huit trente une heure trente de route dina foo mënta ñibbi di nga ko di nga fa fekk mais euh, dóore yi ànduma ci. li ma si jàngale rek mooy ya a d'abord un problème de communication ah dans tout ça ya a aussi un problème de sensibilisation parce que boo xoolee la majeure partie de cette population qui s'adonne à ces activités n'ont jamais vécu couvre-feu tant côté euh, civil comme tant côté force de l'ordre donc il fallait préalablement expliquer au gens. qu'est-ce que c'est exactement un couvre-feu ak lan lañ ci jublu xam nga lan mooy tenaay ak aboutissant yi euh, parallèlement aussi euh, permettre aussi au gens ñu comprendre message yu li ñu jublu ci couvre-feu bi mooy lan on veut les à se débarrasser de cette maladie ou bien à ne pas la contracter d'abord ñi nga xam ne ñoom ñooy dem di veiller à l'ordre il faut qu'ils soient en tenue il faut permettre à ces gens de comprendre ce qu'ils font li ñuy def mooy ñu sol en tenue ba pare ñu am ay moyens vraiment adaptés à la traque ñi nga xam ne aussi ñooy les populations civiles booy yi de préf de particulièrement il faut ñu leen di conscientiser il faut fair passer des spots ah à la télé via le net il faut aussi ñu génne seen bopp que ni affaire bi du fo affaire bi du dóor dàqe hmm? c'est un enjeu mooy lan feebar bi bu nit ñi dajalowee ci biti day gaaw a contracté donc nañ leen leen aider ñu wax leen lii lan la. ñun Sénégal dañoo nekk réew moo xamante ne nii ñi jàngul dañoo ëpp ñi jàng donc soo dekkee ak nit ñoo xamante ni ñi jàngul dañoo ëpp ñi jàng boo leen di wax ci kàllaama koo xam dégguñu ko da ngaa war a wax yeete xupp dóor a dóor bañ ñu dóor mais dafa war a nekk la dernière mesure. ce qui s'est passé si ci ci 48 heures yu mujj Sénégal lañu gis mooy que policiers yi jóg nañ bett waa dëkk bi dóor leen du ma wax seen manque de formation la nous avons une police responsable nous avons une police bien formée et bien éduquée yoo xamante ni ils comprennent exactement quelles sont les décisions à prendre et au euh, comment dirais-je à temps par conséquent population bi c'est une population aussi boo xamante ni il faut comprendre que c'est une population boo xam ne dafa composé wu à 75 voire 80 pour cent yoo xamante ni ay dandooy ay góorgóorlu le le le jour où la décision tombée ñu war a couvre à 20 heures il s'est trouvé que nit ñi dem nañ liggéey ils n'avaient pas pris les mesures donc forcément pour une première même pour une deuxième fois ils étaient contraints de rester au dehors jusqu'après 20 heures donc moi pense que à ce niveau-là, il devait sensibiliser au moins pour une semaine. Et là, on pourra voir quels sont en fait les fauteurs de troubles et quels sont maintenant les gens responsables. Parce que force aussi est de reconnaître qu'ils ont tapé sur tout le monde en mélangeant les responsables et en mélangeant aussi, comment dirais-je, les, les, les, les, vies responsables donc, entre, entre guillemets. Donc, force bi nga xamanteni ñom lañ am la police, ça doit être une force de buy sensibiliser d'abord ensuite une force bu fi buy contraindre et enfin maintenant une force buy exécuter mais ça doit pas être une force boo xamante ni dafay exécuter ce que je déplore par rapport à cette situation mooy la communication bi nga xamante ni les forces de l'ordre ñoo ngi koy jël à travers les réseaux sociaux on les voit ñuy montrer seen ay bras di montrer ay ay ay ay ay ay bastonnades et tout ça c'est comme si ils prenaient plaisir à taper sur une population donc loolu je le dénonce jusqu'à la avec la dernière énergie, hein, je dis.